si problème la euh, dernièrement à Ngor y des affrontements ba président Sall dafa mujj intervenir pour que yëf yi calmé wu ñu koy kaas pareeguñu on nous montre des documents yoo xam ne euh, ay terres la ñu jox attribué à des activistes des rappeurs des adverses des, des opposants ay sénégalais lañu am nañu ci droit authentifié ñu document bi nag mais voilà. ça commence vraiment à inquiéter certains oui, mais, citoyens mais, mais, foncier ak ni ñu koy joxe au Sénégal c'est un problème joxe foncier moom joxe suuf kenn mënu koo bañ c'est-à-dire que comme que ni nga ko waxee euh, sous réserve de l'authentification des documents qui circulent mais joxe suuf joxe nit sénégalais suuf. loolu mooy doon yoon en fait. loolu mais xëy na xàjjale bi ci am. ñàkk a tolloo gi qu'il soit de l'opposition mhm. ne me rek. est-ce que def nañ ko ci yoon respecté yoon yu mu war a respecté yëpp. Mhm. bu ko respecté rek y a aucun problème lii lii bañ kay mooy ma jël suufu pa Mamadou Mamadou. jox ko Ablaye Sow parce que simplement Ablaye Sow daf koy jaay doole. mais suuf suñu déclassé ñu ne dañu bëgg fii ñu def fi habitat fii ñu def fi équipement fu ñu def habitat nag mais bu fekkee ni am na sénégalais bu ko yelloo ñu jox ko ko dara nekku ci. man ak ku mën ci doon ak ku mën ta doon dara nekku ci. d'accord mu nekk un problème de réglé mu des le ce qui s'est passé Ngor foofu aussi demoon na ba ñaari nit ñàkk seen bakkan mu doon lu déplorable. Euh, voilà le président Sall le foncier yàgg na ko wax c'est un problème mais aussi waxtaan bi war a am avant ba éviter yooyu est-ce que mi ngi am. à votre niveau mais loolu loolu xam nga li xaw ngoor maa ngi koy méttilu di ko naqarlu te yàlla may na ma ci confiance du président de la république ba ñu participer ci réunion boobu ñu am ak euh, collectif bi gérer mbir moomu ci ngor. seen te maire mm-hmm. jiite ko wax dëgg yàlla. discuter nañ ak responsabilité bu nga xam ni ak tey may profiter nag vraiment. Mm-hmm. parce que maire boobu nekk maire wu Ngor. man xaw c'était la première fois da yeewi askan wi c'était la première ma doxaloo mhm. c'était la première fois ma gis ko à part télévision mais jàpp naa ni posé na problème yi avec responsabilité discuté nañ avec responsabilité man nag duma ko xam ni damay fekk discussion lu nekk ma génne ko lu ñu war a génne moom ci boppam moo ko génne mhm. li ñu war a génne li war a topp itam président ku ci nekk mission bu mu la ci jox ku ci nekk yaa ngi ci topp mais li am solo mooy ko il faut que ak li président waxaat foofu il faut qu'on privilégie en amont le dialogue et la discussion. Mm-hmm. bu ñu dialoguer discuter parce que dafa fekk ni histoire suuf dafa lu lu Macky Sall la commencé. c'est-à-dire que depuis l'indépendance problème baa ngi fii lu indi ay la loi sur domaine national lu indi loolu yëpp parce que état bi njortu woon na ni jafe-jafe mi ngi commencé am. Mm-hmm. diggante éleveur sàmmkat yi ak béykat yi du tey léegi la commencé bi Sénégal nekk Sénégal ba tey loolu dafay am muy gën a di law mais li muy gën a lu ñu koy mën a wàññee nag mooy toog di waxtaan di waxtaan respecté ku ci nekk rek jox sa morom cër bi nga war a jox ñu waxtaanee xool intérêt réew mi fu mu nekk. parce que nag itam doo ñëw rek suuf si sama maama ko moomoon kenn du ko laal kenn du du développé loolu mënut a nekk fenn. Mm-hmm. mais bu ñu waxtaanee ba nga xam sa sa sa yelleef sa sa sa sa yelleef ci ci suuf soosu xool aussi état bi lim ci bëgg lim ci nar est-ce que population yi la ñu dem ñu waxtaanee ko. buñ ko waxtaanee buñ ko